yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na fi nga xam ne mooy aéroport international Blaise Diagne daan nañu fay jàpp li nga xam ne mooy ab drogue drogue boobee nag ñoo koo xam ne ma ngi bàyyi bi ma ngi jàbbaa jónge ci réew mi journal bi na ubbi nañu cab enquête yéen kaay bi nga xam ne mooy jàbbaa jónge ci réew mi yàmbaa ji tamit ma ngi fii jàbbaa ndax ñi nga xam ne ñooy waa dikk division des investigations criminelles ñoom dem nañu fi nga xam ne mooy yaraax foofee ne man jàpp fa yàmbaa ju bare bari yàmbaa jooje nag ma ngi doon dox diggante Casamance ak fi nga xam ne mooy Ndakaaru maanaam nag île de la Casamance fa la bi doon jóge ñëw ci Ndakaaru ci ay gaal la ñu ko doon yàpp yéenekaay gi di réew mi quotidien nee na bu weesoo drogue beeg yàmbaa ji nga xam ne ñëpp nangu nañ ne ma ngi jàbba jonge ci réew mi foo bii yi tamit ma ngi jàbba jonge ndax am na benn tubaab bu tudd Nicolas ak ku tudd Binta ak Ibrahima ñooñee teg nañu leen loxo ndax dañu doon jéem a rawale ay faux billets yéenekaay gi de la témoin nee na bu passé drogue dure beeg yàmbaa jeek faux billets yi am na leneen loo xamante ni war nañu ko wax ci réew mi mooy faux médicament yi nga xam ne maanaam dafay rey te ñëpp xam nañ ne jamono ji faux médicament yi ma ngi mel ni tulleeg mala ci réew mi waaye nag mbooleem li nga xam ne ay faux médicament la ñu jàpp ko ci ñaari ay bés yi nga xam ne moom la ñu weesoo bi ñu ko xaymaa toll na si ñaari milliards ci sunu koppara waaye nag moo ne faux médicament yooyu yëpp nag wax ji wax ji mu neex ak mu naqari réewum Gàmbi lay jaara maanaam Gàmbi yéen a kaay gi nee na douane bu kër ayib mbooleem yi nga xam ne teg nañu ko loxo loolu lépp Gàmbi lay jaara te faux médicament yi day rey yéen a kaay gi di li nga xam moo xew ca diiwaanu Israël ak Palestine imaam ak ulema yi nga xam ne ñoo dëkk ca diiwaanu Ndar ñoom nag daal nañuy woo communauté internationale bi ñu daal di wane fulla wane fayda ci li nga xam ne moo xew ca diiwaanu Palestine yéen kaay gi du l'Observateur xëy duñu xibaar ci li nga xam ne moo xew diiwaanu Israël ak Palestine xalif général des Tidiane yëkkati ci ay kàddu ndax ni ki démb yabal na ab délégation bu rëy fi nga xam ne mooy ambassade bu Palestine ci diiwaanu Ndakaaru moom sëriñ bi daal nay wax solidarité ak jàppandal gi nga xam ne ma ngi koy jàppale Palestine libération xëy duñu xibaar naan ñu kër gii di o scandale dëgg la ndax kër gi nga xam ne moom lañ dénk lépp loo xam ne jëm na ci wàllum séddale ndox gi maanaam nag déception bu rëy ak mbetteel la ci askanu Sénégal am ndax ndox mu baax maanaam qualité ak nag ndox moo xamante ni mu doy sëkk la jamono ji bëri na ay quartier yoo xamante ni mënuñoo gis ndox moo xam ne maanaam ndox mu am qualité la bëri na ci ay quartier yoo xam ne amuñu ndox mu doy yéen gi na frustration maanaam mer mu rëy moo am ci biir kër gii di te ki nga xam ne moo ko waral maanaam mooy directrice générale ba yéen kaay gi ñu xëy fekk fa doomu Jean Paul Dias bi ne ma Barthélémy Dias maire bu maire mu Sacré-Cœur daan wax ne élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal maanaam candidat la ci mairie bu Ndakaaru moom Barthélémy Dias daan wax ne jamono ji Macky Sall yebal na inspection cour des comptes ci mairie bu maire mu Sacré-Cœur ngir ñu def ab waaye nag na leen leer ne Barthélémy Dias du Khalifa Sall ndax Khalifa Sall bi mu fi waxee ne candidat la dañu faa yebal compte nañu ñëw def seenum liggéey maanaam jébbal seeni rapport jàmmoon ñooy te amul kenn koo xam ne maanaam mën naa tere ma nekk candidat loole dama bëgg mu dugg ci nopp Macky Sall Barthélémy Dias ci yéen kaay gi de las ak Sud Quotidien nee na opposition bi nag seen réunion yu të dakk yi nga xam ne moom la ñu nekk moom la ñu war a bàyyi opposition bi bëri na ci ñoo xamante ni dañuy deal ak Macky Sall maanaam ay complice su Macky Sall na opposition boo xam ne foo leen fekk maanaam ñoo ngi toog maanaam jóg taxaw jonn jàkkaarloo ak Macky Sall defante ko ak Barthélémy Dias na bëri na loo xamante ni xew na ci réew mi opposition bi ñoo siy jàppale Macky Sall ci Sud Quotidien moom doomu Jean-Paul bi nee na li nga xam ne mooy découpage bi Macky Sall yi def ci diwaanu Dakar loole nag agressé askan wi nga xam ne maanaam ñoo yeewoo Dakar la te amul lenn loo xam ne mën na koo justifier yéen kaay gi du l'Observateur ñu xëy fekk fa Cheikh Sarr bokk ci mouvance présidentielle nekkaloon Benno Bokk Yaakaar ci dialogue politique la nekk moo tax ñu nekk ci am xam ne jëm na ci wàllum audit bi amul lenn loo ni ump na ci opposition bi yéen a gi dee sat xëy ci diwaanu Europe ak championnat yi nga xam ne jamono ji enjeu yi bëri na ci week-end bu mujj bi yéen a gi nee diggante Atlético ak ki nga xam ne mooy Real Madrid kenn ku nekk mën na jël championnat ba waaye nag lépp ma ngi aju ci Atlético bu amul victoire yéen a gi nee na Juventus de Turin moom soo muy tuulee du qualifié Ligue des Champions a kaay gi di sunu làmb xëy duñu xibaar